asalaamaaleykum mbokk yi teel alxames juróom-benni fan ci weeru diggu tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ci atum ñaari junni ak nit ak benn juróom-benni fan bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la mënees na cee wat wala daloo ci wala takk ci ab sëy wala yeggale ko ca wala sanc ci kër wala tàmbali ca dara ak yu mel ne ñoom bu dee bisub alxames bi liñ ci gën a taamu mooy ko ca daloo ñaanuk bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci mbëggalum bàmmeel ak mbëggalum sawara ak ci fitnay dund ak de ak ci fitnay masiixi dajjal allahuma inni audu bika min adabi alqabr wa min adabi annaar wa min fitnati almaxya walmamaat wa min fitnati almasiixi dajjal xadiisu bis bi jëlee nañ ci abi hurayra yàlla ko yàlla gërëm mu ne yonente bi salallahu nekkoon na di wax ñaan gii allahuma inni audu bika min adabi alqabr wa min adabi annaar wa min fitnati almaxya walmamaat wa min fitnati almasiixi dajjal xadis bi Buxaari moo ko nettali waxtu julli yi suba waxtoom dana tàbbi juróomi waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juróom benn tisbaar fukki waxtu ak ñett wu tegal fanweeri simili ak juróom takkusaan fukki waxtu ak juróom benn wu tegal fanweeri simili ak juróom timis fukki waxtu ak juróom ñeent wu tegal fanweeri simili ak juróom ñaar gee ñaar fukki waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak juróom ñett loolu mooy waxtu julli yi ci Tuuba ak li ko wër